moo tax ma doon wax benn journée ci affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko normalement moralement Adji Sarr waru war a ñibbi këram ah bu fekk waaw wax dëgg yàlla ci xel mu gàtt rek ci nit kese kese kese kese ñaari at yàlla nga téye ko ay doomu aadama ne dañ ma violé ba mu yàgg nga ni damaa ëmb ñu ne déet waaye ay doomu aadama faatu ay marche am ci ñu rayante ay nit dee ñu dem ba ca jobaxtan la ñu ne eh, ay la yëwén aw ay la du yëwén dañ koy yëwénal rek

waaye melo boobu ñun ñooy xool nu mu ñu nous ñu doxee ci nu mu ñu neexee sunu justice te na mu ñu neexee ak na mu ñu arrangé la yow yàlla yamal fii lii nag tax ma a ma xaw a gedd man mësuma am espoir ci réew mi bàyyi woon naa ko ak politique yi bëggoon tukki dem dooni américain why not mais Sonko ñëw remplir ma d'espoir ne ma xoolal sa moroomu américain gënu la gëmal sa bopp ñu ànd liggéey sunu réew bàyyil ma njariñ loo fekkee nañu liggéeyal sunu sëtaati sët s'il la faut nañ leen defar réew mii lépp a ngi fi ngir loolu mën a am àddina sax bu ñëpp tegu woon ci yoonu njub balaa cinq ans mu soppale ku nekk lem ñëpp di dund alhamdulillah mais la justice humaine ne ma lii du fi am sa rêve bi dañ koy briser te yàlla ci boppam mënu ci dara yàlla na yem place am Ahmed Cissé mi ngeen naan naa ci wax wax dëgg yàlla mënatuma wax ci moom lu ma waxagul ba tey xoolaat leen samay vidéo li ma leen wax dafa leer day foowee xelu jaamu yàlla yi rek profité ci liggéey kooku ñun bu ñu amoon jom fulaak même bu ko nit ñi demee interview ñun duñ ko seetaan ba ci polémique bref entre parenthèse la woon. ba xam nga xam nga am réew ndaw ñi nekk ci réew ma ñoo koy defar waaye dañuy dellu ci li président Kennedy waxoon ne yow bul wax lu la réew mi defal seetal loo defal réew mi ba noppi xam nga takku ak laxasaayu dem wuti liggéey bul ko aj ay politique ay état ay lii nañ ma woy nangam naa naam jaay kër yi sax métier la. jaay banaana métier la jaay fruit métier la c'est-à-dire que xaar ndaw du toog di xaar ndaw day anticiper ci ay fanam góor pire day def lu mënul waaye loo bàyyi ba man ko def ko jaratu ko ndax da ngaa bàyyi ba man ko góor Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum Al nee na ku dul risque doo xam sa liggéeyu ndey boo dul risque doo xam sa liggéeyu da ngay da ngay da ngay wuti dara ne nangam yàlla fekk la ca la nga bëgg yàlla sax du fekk am na fu ju toll ne du àggaleel ko tàmbaliwul yàlla du àggaleel ko wul jeunesse bi foofu lañ leen war a woo moo tax nga ma sax mi dem ci mi affaire bi du ay yu demee de ay audience foraine dans les quartiers dans les villages gox chef de village sous-préfet préfet gouverneur police gendarmerie ñuy def ay jalsa li arab naan ay jalsa ay toogaay pendant six mois di dem ci tefes gi di fa def ay di leen laaj seen xalaat ndaw ñi ba noppi lay seen xalaat ñu koy noté di leen accompagner pendant douze mois suñ ko defee def audience foraine yooyu à travers les quatorze régions du pays ruq-ruqaan boo nekk ñu dem fa waxtaan kilifa yi waxtaan dugg impliqué ci kilifa diine yi mën nañoo bi mais su fekkee da naan wooy ndaw ñi dañu kii nangam ak nangam loolu du ko que ku sa yaakaar tas saw fi day rëy boo demee ba amatoo benn yaakaar lu ne an nga attan nga ko def politique de la jeunesse bi en ce dañ ko arrêté ah amna benn quinquennat boo xam ne bii président Macky Sall ndaw ñu la ko jagleeloon malheureusement politique bi ñuy def politique politicienne bi ñuy def mooy yàq mbir yi am na ci loo xam ne lii nit ki su ko su ko xamul da ngay dem fekk ko ci milieu bi mu nekk nga waxtaan ak moom sensibiliser ko ba noppi nag topp ci xam nga sensibilisation sensibilisation yi ñuy def nii et puis dañuy def benn communication bu gën a bu gën a mauvaise mooy communication boobu lu tax mu mel noonu mooy lañ waroon a wane ci télé yi def ay spot publicitaire def ay théâtre et cetera def ko ci rajo yi def ko ci journaux yi dañ koo deful dañoo bàyyi ba affaire bi na bëbëx ñu doog a tëb nag pour kar affaire bi na ci mais ampleur bi li tax mu a màgg te gars yi ay politique lii mën a c'est-à-dire que gouverner c'est prévoir mais nag ndaw ji waruñu foog seen lépp nag wékk ko ci état bi am na ci loo xam ne boo jàngul amoo qualification demal nga reyante ji nga bay mais mbay moom nag état bi dafa am nu mu ci war a mën a taxawee donc par conséquent affaire bi dafa dafa dafa yàqu ca reen ba occasion bi ñu waroon a xool pour régler problème bi moom la ñu rate mais naturellement damay génn réew mi forcément loolu bu ko rogee day nekk jaay sa man mom ñu bari ñi ma méré ñoo ma sama gis-gis ci gal yi dama ni képp ku ci dugg bo déwé wala bo aggé sax da nga xaru ndax gal nit ku amul jom mënu ci dugg c'est impossible ndax bala nga jël gal di nga liggéey ba dé fi jamono tollu Sénégal nga mën fé korkoral ba dajalé lu mu touti touti 300000 non vraiment day fék nga don borom jom dëgg mais jom joju buñu ko investir ci réew mi réew mi dem mais boko jaayé geejgi tardeel nga réew mi mais finalement man damay commencer comprendre ñuy jël gaal am na ci loo xam bu soppeekuwul ci réew mii sunu gaal prendra tout son sens on sera tous dans le même bateau toog ci réew mii xaru ji géej moo koy gën boo dee ku am jom parce que fii même le rêve n'est pas permis que l'ambition repose en paix jàngoro jamono jàngi nii. xam nga mënoo mënoo wax ne forcément dañoo dem xaru ji ndax kii dem bëggul woon a xaru. ndax kuy dem boo sañoon da ngay dem ba yegg am am talaa nga xam nga dafa am lu ñu tuddee ay pesanteur social maanaam réalité sociale yi am mooy tax askan wi ndaw ñu yenn yi duñ ko ñemee ndax lii su ma ko defee nangam su ma duggee fii ñu ne ma nangam sama doomu baay bi de am na lu tax man amuma léegi loolu foofu nag la yàlla ne laxasul nga dem wuti mais laxasul nga dem wuti am na ay yoon soo jaaree fi nga ko war a jaar te sottiwul xaalis ba nga yore woon waroon caa mën a wuti visa te jàllul nga waroon ko mën a fay ki lay dugal ci gaal gi te jàllul yàlla nee na la xabal xaalis boobu bu kerogee nee na jënd ci mbatt te jaayu ko soo ci am détermination te amoo looy léegi nga nekk Richard am na ku ñu tuddee jàllo picc mais kooku ay picc la doon jaay alaaji ji li mbey avant muy toll fii mu toll jaaykat la woon am na sax ñu ne daana dugg ci saxaar dugal nger gi di jaay ay ganaar c'est-à-dire que nit ki il faut un début pour nga mën a nekk il faut nga tàmbali ci zéro pour mën a nekk héros

ki jang tay ji ci amul ba ba noppi ba am baccalauréat wara dem université ñangam kii na dem na dem wuti xaalis jënd ay gerté bu bu tol wala yow di bay di jay gerté c'est-à-dire que yalla yalla ci bopam neewul forcément da ngay tok rek yépp ñew inna allaha la yukhayyiru ma bi khawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim yalla neena duma len defal lu ngeen man tank yeen yéen len pour changer situation bi nga nek maintenant en changeant cette situation là nga ni léegi da ngay dem ci géej gi c'est très beau parce que loolu jàmbaar la dafa gor la góor a ko man jom mooy tax nga def ko mais waxtaan waxtaanal ak sa xel waxtaanal ak say bokk am na ñoo xam ni dem nañ ci seen ay bokk yëguñu ko jékki-jékki rek adadu ñu ne dem na ci gaal gi alors que loolu am na ko mën a la wax loolu nag en amont état bi boo ko waroon a liggéey ci seen conscience def ay audience foraine pendant douze mois yoo xam ne toujours ñu ngi ci tefes gi di wax mais kilifa ki nar a dem te bu nekk mu gis kilifaam mu wax ak moom léegi mu bàyyi. man daal dama sentir cassure. cassure bu mag nag diggante diine ak jamono. lii laa wax oustaz Maodo Faye ndax am na foo xam ne dañuy naan déet. nañu teg yàlla ne te déglu doomu aadama yi. waaye fii tey ndaw di taxaw bëgg kaas ay droit nga gis yàlla teewaat. ñu ni la ndogal wala yu ni mel. mu ñël ko dëkkil xaar yàlla. fan la ñu mën a amaatee ndaje boobu. ci diggante diine ak jamono. Manam rencontre djubole yalla ak doomu adama yi ba au moins quand on parle de justice ñu xamni ki nga xamni justice bobu tur la ci mom melo la ci mom ñu bayiko ko deug ak jëm justice humaine di sukkandiku ci justice divine lepp rek teggu ci kaw deug debu seede bu gën bi ashahid alhaq waaw diine diine mës ta tàqalikook jamono jamono tamit mës ta tàqalikook diine

la la sa diina jooju wax def ko waaye du la tere nga liggéey diina du la tere nga am jom du la tiir du la du la tere mukk ne la demal nga jaayi sa doole du la ne la bul tukki waaye nag daf laa tegal ay garde fou diina ji daf la tegal ay garde fou ne la ah nii kët lañ ko war a defee waaye bu ñu yoon nii lay demee nii kët la ko yàlla waxee waaye nii waroo ko ko defee ñaar yooyu ñoo ànd maintenant comme nous sommes dans un pays de prime abord pauvre ñu ne déetawaay diina ji nekk fi xanaa xamoon ne islam bi fi nekk sax moo tax réew mi taxaw a dal nii tuuti mais am na lu mu doon demee ko reyante nañ bu yàgg yàgg léegi nag respect yooyu ñuy def respect les normes islamiques wala lee normes des chrétiens wala yu demee noonu loolu discuter ci teg tànkam ba noppi doo gën a mbëkk jamono nag seeti jamonoom lan la ci mën a def pour pour daan dooleem mu def ko avec morale def ko avec dignité def ko avec personnalité am jom soo demee nag ba nga xam ne xëy na yàlla moom fii la yemale sa wërsëg ñu xam ne yow day gàcce ngaalaama waaye la nga waroon a def def nga ko waaye nii la yàlla tërale say bokk jàppale la la religion est l'opium du peuple exemple bu concret sa nature d'homme Adam pas la nature animale mais sa vraie nature divine quand il a soif de justice melo yalla bobu, il le non bref mais quand sa nature animale s'exprime lu ci mel ni taal yàq ba ci rayante laa diina ñëwaat ne la non xam nga nit da ngay gëm yàlla nangu ndogal vraiment mëqal te ne mut quoi ci boppam du lu normal xaalis du yàlla mais tey tout tour autour de xaalis cër bi ñu ko jox joxuñu ko yàlla li mu ñu jaral yàlla jaraluñu ko te xaalis moo ñu forcer riche ak pauvre ndax loolu mooy dawal capitalisme mooy jël riche dëgg mooy ki am nature bi am lépp li mu soxla ca fa muy dund def ko pauvre

Eh, dedet man nako gisse gisee mom ndax li la lim lay téré xëy mom la jappé na frein la lim lay téré nga koy bañ def mom la jappé na frein waye kan mo wax né lim ni téré buñ ci bolé jëm luñ jall su la diine ne bul sacc c'est très beau su la diine naa bul fenn bul taxaso jigen joo xam du sa jabar yoy yëpp bu la bu ba nopi daan la la demal liggéey demal nga daan sa doolé sakku lu lew donc kon kon d'une façon équitable l'islam mi diine mi ngi lay équilibré mais diine lam lay tere bu la ko diine terewul woon sax da ko war a tere sa bopp parce que soo ko terewul sa bopp da ngay nekk un parce que animal yi ñooy dem ci instinct waaye nit moom day dem ci xelam moo tax yàlla di wax naan xanaa du ngeen réfléchir xanaa du ngeen xalaat ndax ànd ngeen ak seen xel ndax alxuraan di yéen a koy yéen a koy càmbar est-ce que xool ngeen dem na sax ba mu yàgg mu ne ci seen bopp rek bu ngeen xoolee ci seen bopp rek da ngeen may daal di gëm ba mu yàgg mu ne danaa leen noon ay misaal yu dul jeex misaal yi bu ngeen ko toppee nangam donc loolu mooy loolu mooy une religion comme religion islamique mais diine terewul a liggéey terewul a nga jëngu terewul a nga dem armée terewul a nga def politique mais ñi Sénégal ñu koy jiite ay jullit lañ pourtant ci benn diine lañ bokk même bu fekkee seen jàng xaw kenn par contre nit ki mooy freiné boppam dans sa d'accord Oussas, islam du freiné kenn waye nit ki moy dans sa tête nit ki tamit moy ne ko lire day ñëwaat justice divine ak justice humaine. oui la justice humaine elle est quoi la justice humaine c'est quoi par exemple la la la wajé waxoon né xawma sart xawma euh société bi moy def ci ki di def ci ki dootul c'est-à-dire que benn Euh, l'homme est né bon mais c'est la société qui le transforme tamit loolu Rousseau boo ko waxoon mais euh, société boo ko toppee dootoo topp yàlla ñaar yooyu rek fi mën ne te boo toppee yàlla da nga am société bi positivement te da am diine te da am jamono alors que boo ko toppul nag léegi topp nag léegi daal ne justice humaine bi waaw su ma defi parce que nit ñi dañ lay àtte tribunaux yi ni mu amee noonu la société bi amee tribunal waaw la société am na tribunal ah. jarin pourquoi nga def li jarin dafa dox mo fi defoon li ñu wax la waxa waxa waxa waxa wax senegal wah. gi dañ lay waxa wax ban xol la ñu ko ne di wax motax rew mi le kilifa ko waxoon ne bu kenn ne rayu ma nit te demoo ba ca yalla ba pare ndax amna lo xam li ku ko tek ci ndodd nit ba mbedd mi tu fe jaar boko yegge boko boo ray nga nit da ko jëmul pak rek mais ray na nit lamiñ pak la buy ray nit legui nak yoyu soko ko doto demati parce que da nga nan justice bobu dal na ci sama kaw legui nak da fay tek ci justice bobu laxasaa yi ba noppi jiital yàlla daal di nag mbëkk nag wuti jamono parce que boroom xam-xam ba dafa wax ne àddina ñoo ko man waaye dañ koo ragal kon nañ ko song te bàkk yàlla ci surtout te loolu joma koy joxe waaw oustaz su ko defee comme xam ne ñu ngi jégalu bu baax ci temps bi ñu jël ndax temps dafa cher te yéen macha allah waaye kat dañ lay bàyyi di la sant bu baax a baax di la gërëm bu baax ba amul àpp nag waaye di la bàyyi tamit sa euh, dernier mot bi nga xam ni message lay doon waaw man lay li may wax rek mooy yàlla na def Sénégal yàlla ci yàlla def yàlla na fi yàlla def jàmm. Eh, yàlla na yàlla tàppe xol yi ni ko sama sëriñ ba daan waxee maam El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh mm. mais également nit ñi nañu am jom nit ñi nañu muñ nit ñi nañoo nangoo daan seen doole Sénégalais yi dañuy yàq ci temps ci wax. Mm. buñ ko liggéeyoon am dara. dañuy yàq ci temps ci portable yi buñ ko liggéeyoon am dara da ngay ku nekk ci portable soo ba ngoon nga mën a bàyyi portable am na ñoo xam ne léegi dafa mel ne portable bu mooy seen malaaka mooy seen dund mooy seen lépp te loolu du àddina bi ci tegu dañuy jëm ci ay échéance muy élection yi ñu jëm et ça c'est important yi faut ngeen jàllale ko échéance yooyu buñ ca jëmee nañ xam ne malgré tout ak lu mën a am yàlla nekk ci kanam beneen bi ci tegu mooy kii ñu tànn ndax li muy lu bees moo tax ma ciy wax muy Amadou Ba mii ñi ko mën a jàppale nañ ko jàppale ñi ko mën a liggéeyal nañ ko liggéeyal teñ may ko péexam am ci moom yërmande parce que kilifa da ngay am ci moom yërmande pour jàppale ko beneen bi ci tegu te man jàpp naa nit ku baax la jàpp naa ne itam mësuma koo gis nag Sénégal nag boo waxee ci nit nga ne da ngay <laughs> ah, tàng surtout ça waaw surtout ça man mësuma gis Amadou Ba mësu bokk benn jotaay xaw ma ko xamuma mais jàpp naa ne nit ku baax la te nit ku war a jàppale la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala kon mbokk ñoo ko gisandoo jotaay bu ma neexoon lool nag oustaz yëkkati waxtoom jox ñu ko mel na ni askan bi yëpp la ko jox te ku defal askan defal nga yàlla ñu koy sant di ko gërëm recul bi ma ci am nag man ndax dama tàmm di liggéeyaat samay vidéo di ko monter amaana moom recul boobu mën na ko cee bañ a am bu dee samay intervention laaj na bu dee am na lu ci rafetul ci dégg-dégg oustaz Maodo Faye yoon lay doon justice lay doon justice divine nag ma fexe ba demaat ci moom bés bu dee dafa am ci samay kàddu lu ma dëngal dama di doomu aadama te mata di lool su boobaa moom dina ko jubbanti bu dee loolu am na nag maa ngi ciy baalu ak ustaas balaa dara sax waaye bu dee yàlla def na li ma bëgg wax leer ci ñépp maa ngi koy sante yàlla en tout cas sama gis-gis lu simple la à aucun moment waruñoo teg yàlla de côté ci dundu doomu aadama ku teggi yàlla ah daa fekk nga bëgg teg leneen ku teg leneen lu dul yàlla nag ah en tout cas daal bokkaale sew na de man de xaw ma la mu doon xaw ma fa mu tàmbalee wala fa mu yem waaye li ma leer mooy bokkaale sew na lool sax faaw xel yi dellu ci yàlla faaw xol yi gindeeku ci saa boroom dëgg liy defar Sénégal du politique dellu ci yàlla la waxuma diine waaye moral rek li yenu maanaa dafay wane ni bés bu ñu doonee askan bu jox yàlla cër ba mu moom billaay dinañ xam ni ajana lu mu neex neex xol bu gindeeku ci yàlla moo ko gën a neex ngay jullit di chrétien wala sax ngay ate xol bu yëg yàlla moo neex loolu mooy jàmm doomu aadama yàlla nañu ko yàlla defal à bon salaam